alhamdulilah ñëw leen seen revue de presse lambu samedi tey jii la ca gën a fës ak l'actuel roi des arènes Modou xarañ la doomi parcelle bi suñu la muñ xamale dafa bëgg a bëre ba bàyyi daal ko yóbbaale des ak moom ca Parcelles Assainies ne combat bi bëgg na ko bu doon junni yoon la tamit ndaxte combat bi da ko bëgg ndax daa bëgg a bàyyi ak titre roi des arènes bi suñu la muñ xamale Modou Lo yokk nay entraînement am jamono ji te ma nga caa ànd ak ki nga xam se ni moo di Franc ànd ceeg Goro Sock ànd ceeg ki nga xam se ni moo di l'espoir des parcelles di Franc suñu la muñ xamal ne Ama kon dana gën a góorgóorluwaat ci entraînement yi dana gën a waajaat bu baax a baax ci digganteem ak Modou Lo bi mu jëm la 5 novembre suñu la mu ñu xamal ne keneen ku war a entraîner bu baax ba mel commando moo di ndaxte mission commando la am le 19 novembre ndax mi ngi dajeek mbër bi gën a naqaree ci làmb ji di Lac de Guiers numéro 2 waa production taxawal nañ combat bu neex diggante Oliguen bu Dalifor ak bébé garga bu Parcelles Assainies suñu mu doon le 19 novembre lañ koy amal taxawal nañ tamit beneen combat mu ñu xamal ne bébé garga bu école de lutte Balla Gaye ak ki nga xam bu yaraax combat boobi waa jàmbaar production taxawal nañ ko kii di Fils de ngay xam ne ne digganteem ak Lagros na Lagros entraîné bu baax a baax lu ko mooy rek dana dund metti bu bés boobee ndax dina ko teg lu metti suñu làmb mu ngay ñëw ci Fouta production mu jëm ci bis bu am solo le ci diggante Gakou 2 ak ki nga xam si ni moo di Pokola ak ki nga xam si ni moo Jackson 2 yamul foofee diggante Iboo bu Kër Mbay Fall ak ki nga xam si ni moo di Ñang ah. Mbaalo bu keroogee ñoom it daañu laale ci bis boobee ki nga xam si ni moo di Boy Niang 2 laale woon nag Balla Gaye 2 le premier janvier bi ñu génn le premier janvier la jëmaat ci digganteem ak ki nga xam si ni moo di Modou Lo suñu laaw mu ñu xamaleen dam lam am ca Balla Gaye moo ko may mu bëreeg Modou Lo ki nga xam si ni moo di Sa bu ndaw nekk ci écrit yëmbal marin suñu làmb mu ñu xamal ne dafa lekkoon avance waa Mbousnakh production waroon a bëre jël dem jël dem blessé woon ci diggante bi tànn ñu war koo bërewaat suñu làmb mu ñu xamal ne Sa Thiès ak ménagère am dem jëli beneen combat moo tax fi ñu toll nii Mbousnakh production ma ngi leen di laaj avance am ginnaaw loolee suñu làmb ma ngay ñëw ci combat yu am solo yuñ jëm ci mois de octobre bokk na ci Mama Lamine Gor Soog le premier octobre le 8 octobre diggante Zoss ak ki nga xam si ni moo di Ada Fass suñu lam mu ñu xamale ki nga xam si ni moo di doomu jàmbur ma ngay waaj te am na confiance bu mat te digganteem a ki nga xam si ni moo di serpent mi mu war a dajeel suñu lam mu ñu xamal ne Balla Gaye 2 ak yi lit naam suñu lam mu ñu xamal ne Elton dem na États-Unis les deux dem Angleterre kili soo ko sim daanaka dafa toog di xaar amul combat suñu lam mu ñu xamal ne naa yi gënoon a gis ci ginnaaw Balla Gaye ñoom ñëpp gisatuñ leen ci ginnaawam suñu lam mu ñu xamal ne Albarka Kayré ak Baye Mandiaye combat ba am na date jaw fara ma koy tëgg la 7 octobre la koy tëgg samedi lay tombeel ci arène nationale ginnaaw loolee ñu sant leen gërëm leen te leen ñaanal weekendu jàmm